أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن kon nu war a tàmbalee tey ci wa waxtu muxtaar lil maghribi lil maghribi shamsi mooy sow jant ba yuqaddaru def na nattale bi fi'liha ci ak defam baada surutiha gannaaw sartiya mu ne muxtaarum timis mi ngi tàmbalee ci bu jant bi soyee bu jant bi soyee ba nga teg ci diggante boo xam ne waajal timis julli ko fi xaj na fi su dañ naan muxtaaram timis jeex na kon muxtaarum timis noonu lañ koy nattalee gannaaw bu gannaaw bu jant bi soyee nga teg ci diir boo xam ne waajal timis julli ko fi xaj na fi te mooy bi nga xamee ne jant bi sona buñ ci tegee diir boo xam ne laab fi xaj na fi maanaam laab ci am toj ak laab ci sobe xaj na fi te mooy ki jàpp war jàpp na bu ko sangu farata waree tamit sangu ci ngaayal farata waree tiim na kon kooku laam na ku def benn ci yooyu noonu laam nga ci am toj ak laab ci sobe nga xam ne ah, saw yaram laab na ci sobe sa yére laab na ci sobe bërëb bi ngay jullee tamit laab na ci sobe waaye tamit suturaal nga sa awra maanaam mooy sol nga yére yu mën a julli jublu penku ñu nodd fi liqaam fi julli fi ñetti rakkaay timis yi maanaam diggante su toll noonu ci lañuy nattalee muxtaarum timis diggante su toll noonu gannaaw bu jant bi sooyee daal buñ ci tegee diggante bu toll noonu rek muy waajal timis julli ko fi daal xaj na fi su boobaa dañ naan muxtaarum timis jeex na loolu mooy mazhabu al mudawana bu dee bu dee bu dee muwatta bu imaam Malik nag la ci Malik yeexal mooy muxtaarum timis day dem ba safax fàddu safax fàddu boo ko déggee mooy bu jant bi soxee xonq xonk xonk yi des fii jant bi soxee bu demee ba raaf ñu ne léegi bu demee ba far ba raaf ñu ne muxtaaru ñu ne safax fàddu kon daa ñu ne mu dee Maalik loolu la yaxal ci al Muwatta mooy day dem ba safax fàddu benn nazim nee na ci aw bayit yamtaddu yamtaddu li safaxi waxtul maghribi shahrahu rajraji wa bunul arabi ku mel ni arabi almaliki ku mel ni rajraji ñoom loolu lañ siiwal muy muxtaarum timis day dem ba shafa fàddu loolu la Malik tamit yaxal ci almu almuwatta mu ne wa waxtu muxtaar lil isha i ñeel gee min xoro bi xumrati safaxi mi ngi tàmbalee ci sowuk xonq xonqub safax li sulus yi ba ci sulus ba al awali ba aji jëkk al awali bi aji njëkk nee bu dee gee nag muxtaaram mi ngi tàmbalee ci bu safax fàddoo maanaam bu jant bi soyee xonq-xonq yim fiy bàyyi bu demee ba raaf ñu ne safax fàddu na foofu la muxtaaram gee tàmbalee day dema dema dem nag ba guddi gi boo ko defoon ñetti xaaj bu benn xaaj bi jaa jeexee bu benn xaaj bi jeexee guddi gi nag mi ngi tàmbalee ci bu jant bi soyee bu jant bi soxee ba keroog ñuy noddu noddu fajar diggante boobu noonu ngay seddale ñetti xaaj ñu ne ci misaal jant bi daal mi ngi so heure sàngam waaye tamit ñi ngi noddu fajar heure sàngam diggante boobu noonu ngay séddale ñetti xaaj bu benn xaaj bi jeexee xaaj bu njëkk bu jeexee rek dañ naan muxtaarum gee jeex na donte nag am na ñu ne day dem ba genn wàllu guddi gi jeex am ñu ne guddi gi lépp sax ci muxtaanu la bokk am na ñu gisee noonu ci ba am xam-xam yi waxee la li nisfi waxee la laylu kull am ñu ne guddi gépp la am ñu ne guddi gi bu xaajee wala kulli xal dal nim ni mu waxee moom mooy muxtaarum gee moom mi ngi yem ci Euh, guddi gi boo ko defee ñetti xaaj boo ko defee ñetti xaaj bu xaaj bu njëkk bi jeexee foofu la muxtaarum gee mu ne wa waxtu muxtaar li subxi ñeel suba minal fajri mi ngi tàmbalee ci fenkuk fajar as saadixi gay aji dëggu lil isfaari ba ca set ga al ga gën a kawe nee na bu dee jullik suba moom muxtaaram mi ngi tàmbalee ci bu fajar fenke maanaam bu fajar xare ba leer gi tàmbalee tasaaro waaw foofu la muxtaarum suba tàmbalee ba ba bët set maanaam ba nga xamee ne mi ngi leer ba nga xamee ne bu nit bu ba nga xamee ne bu nit di ñëw te muurut xarkanamam nga mën koo xàmmee rawatina bu dee koo xam soo demee daal demee dem daal bam ba mu xaw a leer ba nga xamee ne bu nit di ñëw te muurut xar kanam nga xam ne kii di ñëw diw la su boobaa dañ naan foofu la muxtaarum suba yem foofu la muxtaarum la muxtaarum suba yem bu dee ba mu nga xam ne bu nit di ñëw nga xam ne nga xam ne kii di ñëw diw la nee na waxiya moom jullik suba al wusta mooy julli gën ga gën mooy ga gën al mooy al mooy ga gën loolu la imam malik jàpp loolu la imam malik jàpp lool la waa madinatul munawara tamit jàpp al wusta mooy al am na benn saahir bu doon tagg ay nit ba ne leen hum wasatun yardal yardal anaamu bi xubbihim ida talaat ixdal layaali bi maazami comme wasat wasat googu dafa ay maanaam al fudula loolu la imaam malik jàpp ndax bi alquran waxee ne xaafizu xaafizu ala salawaati wa salaati al wusta mooy na ngeen sàmmonte julli juróomi waaye daa di cee ràññetlewaat dani wasolaatul wusta wasolaatul wasolaatul wusta kon solaatu asolaatul wusta googu noonu bu dee imam malik ak waa madinatul munawar dañuy jàpp ne mooy jullik suba am nañu ne mooy jullik takkusaan bu dee xiraa après kaamilu abdullah ibn mas'ud tamit la ca nekk mooy la muy firndeel mooy jullik takkusaan kon gën julli la mooy asalaatul ndax jullik tàkkusaan la wala boog ndax jullik suba la loolu ay wax yu bëree bëree bëree bëree bëri lool sax borom xam-xam wax nañ ko ci mu ne wa in maata dem faatu na wasatal waxti ca digg waxtu wa bila ada in ci lu ak joox lam yaax si muy yàlla muy yàlla nee bu fekkee ne euh, nit ki julliwut ci njëlbeenu waxtu wi yàlla dogal mu dem ba ci digg waxtu wa mu daal di génn àdduna ci lu dul muy julli tamit euh, sharia day jàpp ne day danaan kooku muyut yàlla muyut yàlla ndax waxtu muxtaar bi moom mu kàllaf mi dañ ko cee tànnloo bu ko neexee julli ci njëlbeenu muxtaar mi walla digg muxtaar mi wala bu mujj muxtaar mi kon comme que njëlbeenu waxtu yi moom julli ci dem ba ci digg waxtu mu génn àdduna tamit du tax mu am bàkkaar ci ñàkk googu mu ñàkkoon a julli ci njëlbéen waxtu yi lu may nag illaa an yazunna lu dul dafa njortu nag dafa njortu almawtu faatu ga lu dul nag ne dafa njortoon faatu dafa njortoon ne day génn àdduna ndax benn mi ngi toll ci sukuraat wala bokk mu nekk ci xaala boo xam ne daal njort njortu na ne day génn àdduna waaw kon de kooku dafa waroon a gaaw daal di julli ci njëlbeenu waxtu wa kon bu yéexee julli ci noonu ba génn àdduna farata julli wut suuba day daal di am bàkkaar suuba day daal am bàkkaar su ko defee kon mën nañoo taxawal foofu incha allah beneen yoon yi ñu daal di wéyal li ci topp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu.